dañuy ñëw ci beneen action sociale jëmale ko ci handicapé yi handicapé yi ay doomu aadama lañ comme ñun baatu indi handicapé ci nasaraan mooy ko wàññeeku mën nga wàññeeku ci sa yaram mën nga wàññeeku ci sa xel waaye nag bu ñu amee ay nit yu nekk suñu biir mën a jóg dox faj seen soxla te kenn du leen womat kenn du leen puus mu am ñoo xamante ni yàlla moo leen teg nattu boobu noonu ñun war nañ leen mën a geesu xëcc leen yéegal leen loxo commune Kouthiaba commune la boo xamante ni dañu fi xeex exclusion sociale dañ fiy xeex discrimination dañoo bëgg ñëpp nekk benn ku tane sa morom dimbale morom ka tey ku fi jógee dana wax ne handicapé yi seen Kouthiaba yokk nen bu ngeen di ñëw ñii dañ leen doon puus ñii dañuy raam ñii dañuy sox di ñëw mais tey handicapé yi nga xam dañ leen jox moto bu ñuy ñibbi dañuy taal seen moto dem ñibbi bu subaa mën nga gaaree sa moto su pénc ma ku bëgg a ñëw ba nga ne ko yéegal boo ma fayee ñaar téeméer ma yóbbu la Koutiaba tey koom-koom dugg na litre essence bu dee 1000 francs la mën nga yor sa moto yëpp nit Malemba indi ko Koutiaba mu fay la nga delloo ko mu fay la am nga dara am nga loo mën a jëndee kilo ceeb ba pare ngeen daw ndànk dinañ leen jëndal ay casque teg ko ci am na yeneen moto yu nekk Dakar yu war a ñëw parce que moto yi du lii rek génnee ne lu mat fukki moto actuellement juróom moto moo nekk fii. juróom benn moto Jakarta ak benn boo xamante ni courant moo koy dawal bii dawal courant bi boobu élève yi lañ koy jox élève bi sax day am ñaari moto parce que man jàng rek laa bëgg élèves yi dañ koy jox bii bii bii dawee courant ba pare uutal ko beneen Jakarta di leen gën a gën la gën a jege danaa waxtaan si ñu xool nu ñu koy encadrer peut-être pour mettre en place benn bourse bu koy jox di ko accompagner pour bu ëllëgee mu nekk parmi les meilleurs maires de la de la commune de Kouthiaba wala ci topp. mooy kaaraange bi nga xamante ni moom lañ nekkee kaaraange bi mooy ci wàllu dëkkuwaay teen yi nekk ci biir commune ba ak yeneen commune dañuy gis ne teen yi amul kubéer léeg-léeg rab daanul dugg ci léeg-léeg nit daanu ci léeg-léeg lu mel ni fas daanu ci léeg-léeg nit mer xaru ci ak yeneen ak yeneen ak yeneen ci laa wax borom dëkk yi mën na leen neen defar listu teen yi nekk ci biir commune ba ñu fexe borom dëkk bu nekk ñu jàppalanteeg yow defaral la kubéeru teen bi nga di ko tëj yor kànnaar bi booba laa ko wax ba léegi mais tey la yàlla dogal ñu mën a commencé génne ay couvertaine am na couvertaine yu fi indi den ko jox dëkk yi mu war a dem